yàlla ndax suñu borom bay jubal ci mbaaxam kon waa suñu yàpp euh, fi ñu yàpp indil nañu kaset bu baax ci mbiru excision nañu ànd seetaan euh, balaa ñuy dem ci commercial bi lancé na dama daan jóge sama kër ma topp rabooru dex gi may dox ndànk boot samay loxo di dox ndànk di dox ndànk ba yegg si fii bu ma mosaan yegg si dama daan toog ma jàkkaarloog dex gi su ma toogee jàkkaarloog dex gi bii xel dama naan ma te ngaa dugg ci dex gi nga xaru naqaru pend gi làq na lu mat ñeent fukki at boobaak léegi ñu xarafaloon ko dañ ma xarafal ma jële ci ay jafe-jafe jafe yi mooy fi may wax ak yéen nii benn doom laa am ba ma amee doom ma suivre opération parce que xarafal bi moo ma indil bi ma ëmbee ma am ay problème ba ñu ba may am doom dañ ma opéré tubaab bi ma opéré woon ba mu demee ba mu am ay at ba ma fa delluwaatee dafa ni ma man munuma am doom ba ma ko ne lu tax munuma am doom mu ne ma parce que xarafal bi la buñ la jongalee ba pare dañ lay taf dañ lay taf loolu ñuy wax taf suñ la tafee buñ lay may jëkkër dañ lay xotti dangay am ay perte te loolu jongal bi moo koy indi parce que day doon sa kanam ngeen baal ma ci wax ji dafay dafay ubbeeku te bu ubbeekoo toujours day dangay am ay jafe nii dangay am ay perte wala booy gis règle mu nga doon mu indi métit ci yow doon ay jafe-jafe ci yow feebar daal da lay gaaw a dugg dëkk bi ñu naan Kébémer foofu laa doon see ma am si ay jafe-jafe ndax def naa fi def naa fa juróom-ñaari at yoo xamante ni dama fa daan dund dund bu ma naqadi ndax même budul sama jëkkër sama goro toujours dafa daan saxal ci sama jëkkër ji ne yow ki nga indi fi ndegam munta am doom dangay seeti kuy am doom loolu moo indi sama tas te bi ma si bi ma tasee ba tey nangu tuuma ndax góor ku nekk bu takkee jabar bëgg na mu am doom ak moom lu nekk dégg naa ko yaa ngi toog bëggoo sëy bëggoo dara déedéet c'est li nekk sama xol moo ma tëree sëy ndax bu ma sëyee góor yaakaar na ci man doom te mënuma ko am looloo tax nangootuma sëy fii ci Sénégal xeexum jongub jigéen door na ci atub junneeg juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ngir yokkuteeb soley jigéen atub junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar la dogal xeex xarafalu jigéen ba ko njiitu réew mi waxee ca ndajeb kuréel bi xeex àq ak yelleefu doomu aadama gannaaw jàppale bi muy jàppale gouvernement yeeg ONG yi dugal seeni yoxo ci taxawaay bi FUNIAB dina indi ay pexe yu xarañ ak koppar yu takku ci xalaat yu ni mel ndimbal yooyee yépp terewul naqaru Penda kamara mi ngi des di wéy ba sëyam tase Penda dellu si kër baayam ci Sinthiane ca Podor foofee nag njaboot gi yépp jàppale ko ba tax na kenn ci rakkam yu jigéen jox ko kenn ciy doomam ngir mu féetewoo ko bañ wi tey jàpp ko. xale bi mu ngi tuddoon Raki Raki Diop la tuddoo bi xale bi juddoo mu ne ma mu ne ma kii de am nga sens ndax dama lay may dama lay may Raki. dañ ko jongal kom tey ci guddi gi papa ji gaañu bi papa ji gaañoo léegi nag ñu xëy suba ñi ñi nekk si dëj bi am ku ko doon sang xamul ni dafa jong fu mu ko bu mu ko doon sangee fa la ko gaañee. mu ngi ko gaañee dañoo dañoo jékki-jékki rek muy jooy paan bi ñu ko doon sangee yëpp nekk deret xale boobu nag jongal boobu ak sang boobu ñu ko doon sang ak deret boobu mu ñàkk mu doon xale boo xam ne xale bu xiiboon la infection boobu ak deret boobu mu ñàkkoon moo ko jàppoon ba tax du màgg ay moromam yépp màgg nañu du màgg du def dara si la xamee ni nag jongal boobu moo ko jàpp hôpital euh, Thiès defe naa une semaine la fa def mu gaañu. sama samedi boobu tam mu indiwaat ma man tam sama démb mu doon samedi bu metti ci man samedi bu ma dul fàtte mukk mukk mu doon xale bu ma dul fàtte parce que da doon xale boo xamante ni. du wax mukk dara metti na ma du wax mukk lii moo ma metti bu ma demee ba gis ku téye di ko jongal dinaa ci def ci sama kéemtalaay kat loolu moom jël naa décision boobu parce que ñaar yi bëgguma mu ñett mukk sama ñaari dund yi sama àddina bi ñaar yi ma metti torop torop bëgguma bëgguma bëgguma mu ñett Siré Dañago mi nga xam ni def na ñaar fukki at ak juróom ci xarafal jigéen nangu na loolu. Ah, su ma gisee jigéen ñi ma jot a xarafal coono yu ñuy daj damay am lu ma naqari lool yuñ ci wax yépp ay waxit la rekk dara taxawu ci ay mbiru aada la rekk. ñu ciy wut xaalis waaye ba ONG Tostan dooree di waxtaan ak askan wi ngir ñu bàyyi lu jëm ci yooyu ca la coppeeku am. naftore moɗon yimɓe gandi tapere moɗon eyo debbo pullo weedi ko gelongal minɗon on no balla bamnare leydi mon jitta leydi mon e heeƴe gelongal i jaari on fulla do fafne jaari on ligue mum no ɓenɗi fulla ɗum jofume mbiyo mi wiya on rewɓe fulba e teɓe te rek nge nde yenagabi reccino koko dires yo debbo mine ñuda on duwa jemma e ñaloma aheji sabona jemma e ñaloma hekdañi fulla do fafde inde mon mi wiyo debbo pullo weedi ko gelongal winon and me balance. Ano wegi, ano labi. Pulve ploko and me balance. Shiri ambo angadi. Shiri ambo angadi. Pulve ploko and